asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu man El Hadj président du grand parti coordonnateur de la coalition Idy 2019 maa leen di nuyu. di la ñaanal jàmm di ñaanal jàll réew mi di wax ne maa ngi woote man ak ñëpp ñu nga xam ne tey jii dañu ànd ak président Idriss Seck à travers la coalition Idy 2019 ñu boole suñu doole ak Sénégalais yëpp le 24 février ñu xëy dem vote ji gagné jox réew mi le président Idrissa Seck pour que ñu changer Sénégal li tax ñu ànd ak Idrissa nag mooy yaakaar ju mat sëkk yaakaar ne Sénégal war nañ ko mën a defaraat yaakaar ne Sénégal war nañ ko mën a taxawwaat yaakaar ne Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk te ba ñu boolee suñu doole yàlla meññu dem président Idrissa Seck dina def réforme yi nga xam ne nii boo liggéey Sénégal bu nekk di nga gis sa bopp ci réew mi Sénégal nag jot na ñu defaraat ko Sénégal jot na ñu taxawu ko Sénégal jot na ñu jàpp ñun ñëpp jóg ndaxte kenn mënul defal suñu réew ku dul Sénégalais kon nag nañu ànd ñun ñëpp bokk ndey bokk bay voté jox réew mi président Idrissa Seck ak ñi nga xam ne moom la àndal ñu nekk équipe ba nga xam ne nii équipe bu engagé la équipe bu jóg taxaw pour defaraat Sénégal gëm Sénégal jël réew mi teg ko ci yoon bi nga xam ne nii fa la Sénégal yi bëgg ba bépp Sénégalais gis sa bopp ci li nga xam ne moom la ñu taxawal pour Sénégal jëm kanam jërë